Yadelis. Yadelis existe depuis trois ans, bientôt quatre ans. Et on a ouvert un deuxième resto il six mois. Voilà, toujours sur euh, Cité Assemblée. Service, voilà, service traiteur, pâtisserie, comme, comme taille, yi on fait un peu de tout. Euh, nous sommes Cité Assemblée. voilà ci tali assemblée bi euh, côté mosquée bi voilà bi mooy deuxième deuxième resto bi ci ci trois ans yi donc. Euh, on espère yeneen troisième on espère yeneen troisième ye quatrième yi pourquoi pas chaîne comme yeneen yi. 77 500 77 500 non non dañuy bouger dañuy def gàmmu yi di def euh, màggal yi voilà dañuy bouger mariage lépp dañuy def yëpp. dañuy def yëpp bon bon méttiwul dans la mesure où joxe lekk c'est mais métti na parce que mais métti na parce que da lay sa temps bi yëpp très accessible waaw ah. voilà voilà c'est ça je dis que on est on est accessible ci toute façon je je je laisse je vous laisse ngeen woote pour xam jël info yi vous verrez de vous-même que rapport qualité bien qualité qualité prix y a pas y pas mieux <laughs> <laughs> xola lu waay bëgg ak budget bu mu toll nu mu munti toll on s'adapte fu mu jógee voilà ci commencement bi laaj nga ma sama tur ci am yayaa la yayaa bi mi ngi jógee ci sam papa yaayam la ma tuddee donc euh, à la fois yayaa bi qui veut dire yaay et quand on dit y délice c'est comme si on disait y a des donc tur bi la ak euh, vrai sensu terme bi waaw voilà oui euh, voilà comptable de, de formation def na licence def mas def naa licence def master j'ai j'ai fait huit ans en, en Europe jàng naa li ma waroon jàng mais c'était pas du tout ci domaine restauration passion le plus que autre chose avant muy nekk dara passion la ba pare donc moo